la 2STV salaamaaleykum mbokki téléspectateurs yi salaamaaleykum adduna salaamaaleykum les amis les caméramans les spectateurs après les téléspectateurs ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax a baax a baax waaw kay nag plateau bi mooy plateau bi nga xam ne dafa am li nga xam ne moom mooy ay tribune tribune yaa ngi ne lay est-ce que ça va jaa <laughs> ngeen jëf jaa ngeen jëf béggee ayca kooku mooy Daba euh, l'initiateur du di di du rubrique Dóor ñaan xaar xar ayca mon ami Daba euh, yal na sa jàmm yàgg ayca les amis maa ngi leen béggee bu baax a baax a baax euh, ki nga xam mooy Bruno maa ngi koy ziar. mon ami mm, mm, il est la moom aussi hein, en t-shirt euh, noir euh, euh, la lumière ah, ok ok ok ok ok ok c'est lui la lumière la lumière de la maison ñu ngi koy béggee bu baax a baax a baax ayca maa ngi béggee ma réseau social Seynabou maa ngi lay béggee bu baax a baax a baax maa ngi béggee sama caméraman oh le plus puissant des caméramans le nombre Pape Samba <laughs> maa ngi lay béggee papi le le le pas mu ñëw bu subaa du ñëw ba doo la pire papi maa ngi lay nuyu bu baax sama xarit bi am di Moustapha plus petit de taille mon ami mon momo mon bras gauche am di Moustapha maa ngi koy béggee bu baax maa ngi béggee l' assistant de Pape Samba maa ngi koy béggee waaye maa ngi béggee l' assistant de papi maa ngi leen di béggee bu baax tout noir sa waaye kan moo gaañooti ah, ah, ah kenn gaañuwul ay te kon sant yàlla bu baax a baax léegi nag nee euh, euh, na kët ne jonn maa ngi béggee waa régie bu baax a baax a baax maa ngi béggee maanee di bëggee allah ja maa ngi bëggee ki nga xam ni moom mooy moom mooy ngaay mexee waaye waaye maa ngi leen di bëggee yéen ño ño euh, euh, yéen ñëpp maa ngi leen di bëggee et maa ngi lay bëggee bu baax euh, sama maquilleuse boobu finalement maa ngi lay bëggee di bëggee gaa yëpp ah ñoom ñoom ñoom ñoom bamba gaa yëpp maa ngi leen di bëggee léegi damay wax ni affaire yi na kët ne joon yegg na ba noppi fi ñu toll si na ba noppi léegi ñëpp xam nañ ni suba am nañuy tabaski te rubrique bi rubrique la boo xam ne après fête yi day jeex donc feet yee taxoon ñu créé ko te man du man maa ko créé Daba moo créé rubrique bi <laughs> mais Daba pour mu leer la rek kenn ñëwagul pour waaw waaw pour mu leer non xam nga la laay bañ ay li Aba waxoon nag ay yooyu kenn ñëwagul Daba am di ma ñoo man ak moom lañ boole démb benn enveloppe man ak am di mi ñoo ko ñoom ñoo ko moom yooyu loolu du seen enveloppe enveloppe man ak am di mi ñoo la aja aja Diallo maa ngi koy ziar bu baax moom nga xam ni moom mooy soxna sunu papa jooju nga xam ni mooy papa Diop si yàlla nañ jàmmam yàgg waa kay a Diallo waa kay waa kër geeg may xool xam naa ñu ngi avant mi commencé na encaissé ah yaa dem ak am di la ko boole wallaay enveloppe bu woo koŋ wallaay enveloppe bu dëgër kën kay bu sori wallaay wallaay wallaay wallaay mais kenn du am ni mi ñëw kenn du am ni problème yi ma expliqué démb ne moom la am nit kuy dund gis am problème yu toll noonu ay am ni du ay <laughs> ñu ngi leen di ziar baax di leen bégee yéen a ngi seen émission 12 13 émission bi nga xam ne ci mi journée bi moom kay waa kay nii la ko def nag téye ko daal di koy bañ a bokk kenn nag dégg nga ici sur la 2STV wax naa la ne la looy jaay bëgg mu jar fi nga koy wane wala ngay wane loo xam danga nga bëgg mu feeñ Aziz Ndiaye ah, ah na la ko da ba waxee démb noonu la demee yow la ñuy xaar Aziz Aziz Alé Ndiaye yow la ñuy waa kay waa kay nag pour mu leer waa kay nag léegi nag baax na mu ngi noonu gis ngeen li ma leen di wan nii moom xuma et frère daa war a ñëw moom it xuma et frère sama waaji ji euh, euh, bu ñu paree rek xam naa dinaa fa jaar daal leen seet ndax tey ci ngoon euh, dañoo war a toog man ak waa kër gi réunion <laughs> wallaay wallaay wax na li ne ci kër gi daal leen di jox la ma leen di jox lañ ca moom ñu jël ko la ma ci moom ma jël ko ku ne dem Ilimane Gueye dégg na la ma wax waaye sama xarit Fallou Fall Arrexab kenn du moom Mansour Diong Chéri Baneex kenn du moom yéeg dégg nga bu ko tey la réunion finale bi tey tey tey à minuit dañoo war a gisante maag sama équipe tactique bi ah lii moom du équipe technique lii moom ëpp na technique tactic la ñuy teg seen teg seen i bagage toog ku la wax ay géeram naan wool ma diw la bilaay bilaay ñii ñoo ñeme yóbbante yàlla na seen jàmm yàgg ay ca mu ngi ne woon portable bi xumee frère la jógee dinaa ci ñëw léegi ci kanam gis ngeen ko sikko yi nga xam ne moom laa ne woon sikko bii sik sik sikko sikko bii nga xam ni moom laa ne woon léegi ngeen xool ko original portable la prix bi abordable na yomb na bay bëgg dee wax naa la supermarché boobu rek laa gis xumay frère loo fa yor boo duggee booy génn da ngay yor sa yëf ànd ak moom daal dem ak moom te ay original rek lay jaay xumay biram xuma foofu ca sama xarit maa ngi ñëw léegi ci yéen waaye ki xam ni moom mooy diw gi nga xam ni moom mooy diw j'adore gis ngeen huile bi nga xam ni moom mooy huile j'adore huile de tournesol la huile baa ngi nii huile la boo xam ni ay bi euh, euh, moom mooy huile bi nga xam ni moo gën ci ñun moo gën ci suñu yaram gën ci suñu santé gën ci suñuy togg huile bi moo gën ci suñu waañ gën ci suñuy doom gën ci suñu njaboot ci gën ci suñuy xar sax huile bi moo ci gën ci ginaar yi bi moo ci gën omelette huile bi moo ci gën ay neem sax huile bi moo ci gën nee naa la ay lasagne ak ñoom nambeek ñoom ñandam ak yëpp huile bi moom moo ci gën huile bi mooy huile j'adore boo koy toggee sa jëkkër du tay wala mu lay wala muy son di la wax ay tuyee adorable ak je t'adore waa ABC ñooñu ko indil merci beaucoup à waa ABC merci beaucoup à Ndiaye merci à Baye Ndiaye e merci a toute l'équipe waa kay nak waa kay léegi nag noonu la ñuy def xam ngeen tabaski bi yegsi na foofu lañ foofu moom euh, euh, euh, foofu la ñuy commencé waaye foofu la ñuy daanale tabaski bi yegsi na sunu Sénégal gi ñun ñoo ko moom lu rafet rek moo fi daan am bu tabaski jotee ñu xool waxkat yi xam ni ca télé ba ñuy liggéeyee ñoom waa tele bi dañuy participer ci ñun rek waaye ñun waxkat yi kenn mënuñoo fay li ñuy def mooy liggéey ci tele bi tey fayeeku ci mbedd bi ndax ku toog sa kër am stress ku toog am feebar mbaa nga toog nekk ci ay problème waxkat bi wax wax ju neex nga ree ba daanu ci kaw nga xulool ngeen tàppante daal di juboo toog kooku mun leen koo fay affaire bi du affaire de ay aba day dóor rek ay de non non samay xaalis laa wax laa laa ngeen jox ma ko ku ci nekk ci mës naa la kontaan loo ba nga kontaan te ki leen kontaan loo ñi koy ñi ñii tax mu leen ñii tax ngeen koy gis ñooñ tamit dañoo war di kontaan mais quand tey jour waxante dëgg la dañuy waxante dëgg abaa bu génnee tey téer bi ko ñawal xool nga xam nga ni li abaa ñaw téer bee ko ñaw yaa ngi ciy sàcc ay modèle yow mi nga xam ne yaa ngi Amérique wala yaa ngi France wala yaa ngi foofu ok mais bu ñu tollee ci moment bi ñu toll nii benn western tëjul benn tëjul west yëpp a ngi ubbi ma ne yëpp a ngi ubbi yëpp benn tëjul ok ma toog woon la ay moom <laughs> ma ne sa waay vraiment dimbal leen ma rek dama nekk di wax ful la ko quoi dimbal leen ma rek ok non nañ dem xool clip bi te <laughs> ñu xool clip du jour bi te ñëwaat léegi xool la Wally Ballago Seck waaye ci Tabaski bi ma ñëwaat dama bëgg wax ay dëgg te il faut que ñëpp concentré wu déglu ma ma wax ay dëgg parce que il est temps ñu wax dëgg parce que réew mi ñu ngi koy bëgg a yàq te warta yàqu ñuy maye waruñoo arrêté di maye non non non réew bu amul maye am siif te siif bu amee mooy violence su jóg ci réew mi nañ dem xool clip bi te ñëwaat quand même nañ dem waaw kay kenn du moom Latou Diop dëggeen Mbaye oote na léegi neena day jël en charge benn caméraman moo koy jox waa kay Waly merci beaucoup merci beaucoup Waly Ballago sekk waaye kenn du suñu directeur Abdoul Ndiaye Abdoul mooy gor Abdoul nee na moo jël en charge benn caméraman bu tudd Dabba nee na bu leen may dàbba xar bu ko kenn jox xar moom bu ñu génnee léegi dañuy dem ca daral ba mook dàbba mu jël xar jox ko dàbba Abdoul merci beaucoup ci woyefal googu nga ñu woyefal dàbba ndax bokk na ci ki xam ni moom mooy initiateur rubrique boobu nga xam ni mooy rubrique wut xar dàbba kon yow fi ñu toll ni génn nga ci groupe bi léegi ñeneen ñi ci des waali moom bu indee benn xar mi xam ne moom lay indi ñu xool rek kan lañ ko jox ci équipe bi mais vraiment Abdoul merci beaucoup ci teggil gi ñu teggil dàbba nga xam ne ay waxam du jeex noonu la bare histoire noonu la jëlee condition bi teg ko ci li nga xam ne mooy rubrique am bi pourcentage gi daa gi nga xam ne moom la daa ba teg ci rubrique bi amul ay ca léegi moom dañu ko teg fi ñu toll nii jeex na tàkk ci daa ba Waly Seck yow tamit merci beaucoup ñu ngi ciy xaar Pape Diouf ah, di ci xaar ñoom Momo Dieng ak ñoom Pape Birahim ñoom ñëpp ñu ngi leen di xaar ci rubrique bi waa kay ci seen rubrique la ndax euh, bu ngeen amee clip gars yee koy feeñal hmm, bu ngeen di tourner clip caméraman yee koy tourner li ma fi wax yëpp du pour man pour caméraman yi man mën naa lijjanti sama bopp man xam nga ku ma xam-xam mën naa lijjanti sama bopp man li may lijjanti mooy ñi nga xam ni coolu coolu ñoom la ñi nga xam ni gars yi duñu leen xeexal gars yi duñu leen lijjantil te ñoom ñoo nekk ci dernière e-, e-, te ñoom ñoo nekk lépp ci ginnaaw lépp ñoom ñoo ko waral muy ñi nekk à la régie ak ñi nga xam ne ñooy équipe technique bi man abaa ku ko xam-xam ni bu ma defee benn ñaadam ñaadam undi ñaari xar loolu garaawul ci man mais ñi may laajal mooy équipe technique bi nga xam ne ñoo ne ci ginnaaw colli colli ñoo ko waral bu ñu sañsee mu rafet bu génnee ñoom la wax ji bu neexee bu génnee ñoom la image bu rafetee bu génnee ñoom la ñii ñoo moom wax ji donc Aziz Ndiaye xam nga fa ma nekkoon laay dellu ah bu la plate des sourds yàlla jox la bool daf laa séddale loo dégg nga li ngeen yor bokk leen coog caméraman yi <laughs> daa ba génn na ci loo ba waa ah, kay daa ba fi ñu toll ni yow utal noo amee diw ak ay moutarde ak ay sobleeg yooyu yow moom daa ba fi ñu toll ni sa yëpp baax na ay ca mu ngi noonu léegi ci rubrique bi dama ciy ñëw léegi ci kanam ñu yeggali ko nag tey au sérieux lañ koy jël ku ma wowul tey ba 17h soxlaatul mu moom waaw waaw waaw tey moom ku ma wowul ba 17h moom euh, euh, ba baax na soxaatul ngay woote ayca léegi nag ba tey damay continuer sama nguur portable bii maa ko moom maay ko ku ma neex ma may ko affiché ma samay numéro 88 dégg nga 628 wax naa la 14 13 88 628 14 13 affiché ma samay numéro wala yow mi nga xam ne nekk ko ci biir réew mi yaa ngi biti réew double 0 3 33 800 double 0 221 33 841 nga def 23 def 34 lii laa wax léegi nag mu ngi noonu li ma téye nii yéen a ngi koy gis mooy portable bi nga xam ni moom mooy Cisco Cisco portable la boo xam ni Diamond One la maanaam Diamond One original téléphone la original te bu ñu ko jaayee li ci gën a neex mooy dañ la koy téyel un an yoo xam ne ñoo koy garanti ñun ñoo lay wax un an nga yóbbu ko 12 mois yoo xam ne sa portable moom da nga koy téye 8 mégapixels la ci kanam ak ci ginnaaw waaye waaye waaye 4000 ampères la 4000 ampères maanaam sa batterie téléphone dootul wàcc ci àdduna da nga koy téye di filmer di déglu son di def lu la neex di whatsapp di snap di facebook di instagram di dem fu la neex di youtube fu la neex mën nga faa dem ah ca compte yooyu yëpp xam nga looy tàppee Abba No Stress l'officiel youtube instagram facebook whatsapp ak Snapchat lép rek Abba No Stress ngay tappe li nga xam ni moom mooy moom mooy l'officiel nga ak portable bi dangay ngay connecté wu ci ci lépp lépp lépp li nga xam huit giga interne waaye day jël ba carte mémoire cent vingt huit giga lii moom Cisco rek moo ko mën waaye boo fa demee double puce la ñaari puce lay jël et puis moom bu baax la bay bëgg a dee bi daal lépp ci biir lépp ci biir téléphone bi maanaam téléphone bi téléphone bu yanj la am na black mooy bu ñuul bi am na silver mooy bi nga xam ne mooy argenté bi waaye am na gold moo nga xam ne mooy doré bi mu ngi nii mooy téléphone bi nga xam ne mooy Cisco et puis boo demee foofu bu ñu ko jaayee di nga xam téléphone bi moo gën ci. téléphone yi xaaral ma ubbi ko tey mën naa ko ubbi laay <laughs> maa ngi def lu ma bëgg maa ngi def lu ma bëgg est-ce que xam ngeen mooy lan ah <laughs> eh, eh, yéen ñi nga xam ne yéen a ngi toog foofu bu ngeen waxee kenn du leen dégg maa ngi def lu ma bëgg est-ce que xam ngeen mooy lan <laughs> lii de noonu laa ci mel yow mën a kiiwa ci yem di maak Abdoul ñoo ci yem li may def nii ma ak Birane Ndour dégg nga ak waali dégg nga dajji dajji <laughs> noonu lañu noonu la ñu xamee lu bees mën koo dajji Birane Ndour sama waa ji kenn du moom ak Bougane Gueye Dany sama directeur bu mag boobu nga xam ni cooli cooli mooma Bougane Gueye Dany yàlla na yàlla defal la jàmm waaye chaque année da ma daan jox mbedd ah Bougane boobu ba tey gisuma nga woo ma est-ce que amati na sama sama sama numéro sax Birame Gueye maam góor Asta Demba ak Talibé kenn du moom moom la maamam des ca septième gare Bougane Gueye Dany mooy chéri Moumi ak maam Marie mooy Baye Mama Gueye Baye Babacar Gueye Baye Mohamed Baye Papia eh Baye Fata Bougane Gueye kenn du moom mooy yaakaar sëñ Mbàkke soxna loo ba mu jeex borom Sen TV borom Zik FM borom La Tribune Bougane Gueye Dany yàlla na jàmmam yàgg mooy borom d'accord sama directeur coow li coow li maa ni Bougane yow la coow li coow li yow la waaw kay nag ay te portable baa ngi nii du yéen a koy gis waaw kay yéen a ngi gis téléphone bi mi ngi nii yéen yéen a ko moom yéen téléspectateurs yi nga xam ni yéen ay seetaan euh, euh, la 2STV waaye téléspectateur waaye téléspectateur yi nga xam ne yéen a bëgg 12 13 ayca mu ngi noonu téléphone baa ngi noonu waa kay mbay dama lay yóbbante ci bugaan wax at mu ne mu jox ma xar ana sama xar mi bu bugaan gee dani waaye aja euh, aja alburi merci beaucoup Adja Albouri et merci beaucoup waa GGB automobile merci ci seen disponibilité oto ya démb rafet na lépp baax na bande annonce anniversaire u Aba No Stress bu génnee kenn dootu defati bande annonce kenn dootu ko defati Adja Albouri merci beaucoup kontaan naa ci yow bu baax a baax bokk nga ci samay marraine waa GGB automobile merci beaucoup kontaan naa ci yéen bu baax a baax bokk ngeen ci samay sponsor événement bu mag boobu nga xam ne mooy xew le 22 septembre foofu ca Fun City bande annonce baa ngi noonu partenaire ak ñëpp leen di woo <laughs> wallaay wallaay yeneen image lañ muy lañ la ñuy wane ci man yeneen image loolu nag bu ñëwee bu ngeen ñëwee léegi ngeen xam ni ma nga nekk ca ca ca kii ba mm, eh, eh, eh, ca ca ca kii ba allo baax ki ñu ngi lay siyaar. ah man la sa xarit ah, allo. allo allo na yokk voix am tuuti rek. allo salaamaaleykum waaw kay nag waaw kay bu ayca bu fekkee am na keneen ku nekk ci biir ligne bi rek ñu bàyyi ko mu ñëw kooku mu jee daw bu keneen nekkee ci ligne bi rek ñu bàyyi ko mu ñëw le temps ñuy préparer euh, li nga xam ne mooy suñuy répétition wax naa leen fii la ñuy répété tous les jours li nga xam ne moom mooy événement bi nga xam ne moo war a xew le 22. ok ayca am am na ku nekk ci ligne bi dama doon jug pour <laughs> pour répéter wallahi dama doon jug pour répéter ayca salaamaaleykum. salaamaaleykum. allo wàññi télé yokku baat. ma wàññi télé yokku baat. allo. allo waaw maa ngi lay dégg. mon ami Djily CSB merci beaucoup Fallou Fall Al Rakhab merci beaucoup allo. allo waaw. yokkal sa baat tuuti rek mu mën laa dégg. Ah, maa ngi tudd Mohamed. mu ne kooku dégguma ko ayca nañu yokk baat yi tuuti rek ñu déggante dina may neex lool lool lool bu ngeen waxee ca kaw maa ngi tudd Mouhamed Ngingue dégg bu baax a baax a baax waaw kay nag waaw kay <laughs> loolu daf ci baax ayca Ana Sarr maa ngi lay béggee bu baax a baax a baax anasar day bok ci ci li nga xam ni moom mooy indi euh, euh, ñi nga xam ne ñooy public Abba Show public Abba Show bokk na ci yenn sketch yi sketch bi bokk na ci seen ay meilleurs sketch tey nag dañ ma ko laaj euh, euh, euh, ñi ñi nga xam ne ñoo ci ëpp ñoo ko laaj tey ma bëgg leen ko may en exclusivité ici sur la 2STV sur 12 13 ok ñun Sénégal danoo farataal ay sarax suma benn grand boo xam ne ñoo bokkoon koñ dañ ko digal sarax nag mais dañ ko boo jëlee sarax bi maa ngi répété fi ñu maa ngi répété pour spectacle bi war a am le 22 ci Fan boo jëlee nag bi boo ko rendee ba pare bul fees bul fees nag bi bul ci def dara jëlal nag bi noonu rek dem teg ko ci bopp koñ bi woo waa koñ bi neen kaa leen ngeen jël sarax mu jël nag bi rendi ko def ko ni ko ko waxee teg ko ci bopp koñ bi woo waa koñ neen kaa ngeen jël sarax pa bi njëkk a woo Pape Mboup la day sangu mais seen koñ ñoom toog na ay un yooyu ñoom gisuñu yàpp parce que amul ceet amul ngénte amul dara maanaam paa bi xiifoon na yàpp xiif goo xam ne bañ ko woowee fekkoon ko muy sangu daa jël jàllaabe bi rek teg ko ci kawam génn noonu yee ci biir amul dara <laughs> gratuit la def noonu ci biir gratuit jël paakaam jël lekkatam daal di daw moo njëkk ci nag bi tiim nag bi moo fees nag bi moom Pape Mboup moo fees nag bi waa koñ bi di ñëw par kenn kenn di ñëw par kenn kenn ñu génn premier koñ deuxième koñ quatrième koñ cinquième koñ woo Panjaay Panjaay bi muy ñëw fekk na ñu muur nag bi war ko Panjaay bi mu ñëwee moom xam na ne nag bi fii la daanu te bi muy ñëw maanaam amul temps bu bari boo xam ne war na mën a préparer wu parce que muur nañ nag bi moom fi ñu toll nii mënul gis nag bi mais xam na ne bu roofee loxoom rek mën na am lu mu daj bu leen fàtte ni Pape moo njëkk ci nag bi moo nekk ci nag bi te bi muy ñëw moom jàllaa rek la sol loolu loolu bu leen ko fàtte damay leen rappeler rek. Pa Ndiaye bi mu ñëwee dafa moom cent moom gis nga benn paak bi mu yor cent huit la paak cent huit yooyu nga xam ni fu jaarul sax foofu day dagg waxuma la ak fu jaar Pa Ndiaye bi mu ñëwee dafa rof loxoom bi mu rofee loxo bi ak ni mu à peu près nag pour moom nag day gudd ba ba ba ba ba fii <laughs> mu rof loxoom rek daal di jàpp Pa Ndiaye li jàpp ëpp na benn ëpp na ñaar mat na ñett te tolloowul <laughs> pàññaay dagg bi mu daggee fekkoon na paa mbub sa goon ci digg nag wi paa mbub yëg na am péex moo xam ne gëj na ko yëg ci àdduna am péex moom mu yëg daal di gestu ca dal ga ak ca tey ga daal di laaj ca daal di ne ana ki mujjee dagg Paa Njaay boobu yaramam tàng na ndax mu ngi soog a yegsi mu ngi xëxët naan ko man la kay maa mujjee dagg paa mbub ca dal ga laajaat ko beneen laaj ne ko est-ce que xam nga li nga dagg Paa Ndiaye ca yaramu ak xol bu sedd baag lam lam bu nooy na nooy goo xam nee na ko est-ce que du res Paa naan ko res res dina am karaw <laughs> wallaay noonu la faatoo ay ayca ayca wax naa leen fii la ñu répété chaque jour am ngeen benn sketch boo xam dañ leen koy may ci répétition bi le 22 septembre foofu la ci fan seti deux heures de temps avant no stress sur scène deux heures may def samay ba et vient di def lu ma neex waaye balaa ñuy continuer partenaires yii di romb dama leen ci woo ci le 22 septembre ci événement bu mag boobu anniversaire u Abar No Stress nañ la dem xool yi publicitaire bi nañ la dem xool page de pub bi te ñëwaat ci plateau bi à tout à l'heure nañ la dem xool benn page de pub te ñëwaat à tout à l'heure <laughs> seex yooyu nga xam ni ña ba bari ñi nee nañ sol sa trésorier da ngay gaaw numéro bi parce que ñi ko bëgg am daa bari waa kay ca as création rek la jóge maa ngi ñëw léegi ci numéro bi waaye gis ngeen la ma yor wax na leen banque di doon waxaat wax supermarché portable benn la ci réew mi foofu la am ca xuma et frère biram xuma moo nami mon frère dégg portable yi nga xam na lu ñu a yokk ndax Boubacar Diallo noonu mu ko noonu la demee supermarché dugg fekk fa Infinix foofu ngay dugg fekk fa Tecno foofu ngay dugg fekk fa Samsung ak iPhone foofu rek la am ci biiram xuma xuma et frère boo bëggee dem ci dem nga def 3W point nga def point com nga def point sn nga daal di dem foofu nga daal di koy xool xuma euh, et frère foofu la nekk ca Colobane euh, euh, boo génnee ci rue boobu nga xam ni moom moom mooy waay waay rue ba waay waay waay ma nga kolobaan daal xumee frère daal boo duggee kolobaan foo laajte xumee frère rek rek dinañ la ko wan ay ca mu ngi noonu léegi nag salaamaaleykum salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah. ku baax ki ñu ngi lay ziar bu baax. ça va yaa ngi am jàmm. ñetti at yaa ngi maa ngi lay topp. ah. trois ans maa ngi lay topp. trois ans. maa ngi lay topp. yaa ngi may topp. wallaay wallaay. xanaa yaay sama xanaa yow mi eh, waaye yéen kii mooy sama ange gardien xanaa. wallaay tey daal la ne tey daal la bu sa jot de. ndeysaan yàlla yàlla defal la yow it nga am ay. jàmm yu ah, bëri ah tey jii aussi jàgg naa ci ligne bi. Ah? yàgg naa ci ligne bi de. da nga yàgg ci ligne bi. wallahi wallahi am ah, mujj nañ laa yow de mujj nañ laa wéré am nga sax am ñu yàgg ci ligne ñoo bañ leen fa wéré yàgg na de yow de mujj nañ laa wéré. wallahi. ayca <laughs> noo tudd ak fan ngay wootee. maa ngi wootee Pikine. yaa ngi wootee Mamadou Diaw laa tudd. ah. Mamadou Diaw laa tudd. allo. allo oui. Mamadou waaw tey nag dama koy xaw a ñàkk dégg bu baax a baax a baax yéen ñi nga xam ni yéen a ne ay eh, fële ñi nga xam ni mm-hmm. montage waaw ak kii ak fële ak kii ñii kii moom ñàkk naa ko dégg tuuti waay allo. allo oui. ni ñuy déggantee moo baaxul de ni may déggantee ak samay téléspectateur moo baaxul xaw ma ci ñoom la xaw ma ci man nañ yokk seen voix ah, te wàññi seen télé allo allo allo oui maa ngi lay dégg de noo tudd nga ni Mamadou Diaw Mamadou Diaw waa kay waa kay waa kay ana foo may woowee. Pikine laay wootee. ah. Pikine. fan. ah Pikine Pikine. ah ñu ngi lay ziar baax ñu ngi lay ziar baax ziar waa Pikine bu baax a baax a baax. alhamdulilah alhamdulilah. ah. ah. allo. allo oui. <laughs> yow laay dégg yow yow de laay déglu nii. man tamit maa ngi wax. ah. ayca kon mën na laa laaj fi ñu ah laaj na ma seet. <laughs> ayca ani loo bëgg yow fi ñu toll nii. téléphone boobu rek laa bëgg. eh waay sa yow kay loolu mënuñ ko wax bu yàgg. ah ba téléphone boobu parce que nekk naa 6 000 francs ci crédit tey. ah. ñàkk naa 6 000 francs ci crédit. loo ci yokkoon boo demee xuma frère am portable bi de seerul <laughs> waaw loo ci yokkoon rek boo demee xuma frère. non bëgg a dégg sa kàddu rek moo ma neex. am man daal gis nga suñu bés bii nga xam ni mooy bésub tay di. bisub taxawaayu Arafat. ah. dama bëgg ma ni. waaw. tey dama woor boo ma xoolee rek xam ni tey damaa xaw a woor daal dama woor tey moo tax sama yaram bi xam naa kiiwul ma ni comme tey. Mhm. ñu ngi bàyyi xel bu baax ñi nga xam ne ñoo ne ca penku. waaw te ba tey. waaw damaa bëgg ñun bu ñu woowantee rek. ñu waxante te yàlla rek tax daal tey daal ñu bañ a ñaanante wala yooyu waxante rek te yàlla tax. waaw loolu baax na. baax na. waaw tey la daal. waaw waaw. waaw waaw ok. <laughs> allo. waaw. waaw waaw ngi lay siyaar baax ma ne ñu ngi lay siyaar baax. waaw maa ngi nangu yàlla na yàlla nangu siyaar boole ñu ñëpp. loolu laa wax waaw. yaa ngi may dégg est-ce que. naa la bu baax maa ngi lay dégg maa ngi lay gis. ayca coupé ayca yow bul coupé kon mën ngaa wàcc ci suuf léegi da ngay wàcc ci Omar rek. après lépp lu la wax rek xamal man mi maa ko wax lu Omar wax rek. incha allah ayca ayca léegi nag mu ngi noonu léegi mu ngi noonu ak Omar yéen ci ngeen bokk waa kay gis nga Omar mu ngi may envoyé SMS ne ma ndax ñun laaj gi ñuy laaji xar ak ay pommitère ak ay soble ak ay huile ñoom bokkuñu ci ayca Omar yéen tamit yéen ci yooyu ngeen bokk yéen tamit bokk ngeen ci ba mu neex huile baa ngi noonu mooy huile j'adore wax naa la suba la tabaski wala ginnaaw suba la waaye huile bi mooy lëmbi réew mi huile bi moo toj jamono huile bi moom la ñëpp jënd kër yoo dem li nga fay fekk huile j'adore bi moo gën a set moo gën a sell moom moo xew ci jamono huile bi moo gën ci jamono huile j'adore baa ngi nii daw leen wuti ko gaaw li laa wax daw wuti huile boobu nga xam ni moom mooy huile j'adore waaye bu leen fàttee ni le 3 septembre le 3 septembre foofu ca banlieue ba ca verdure ba am na tànn beer bu mag a mag a mag a mag boo xam ni euh, euh, sunu yaay moom moo ko fay def waaye sunu yaay dafa yàgg def lu baax promotrice bu mag boobu nga xam ni moom mooy Ndeye njaay Tyson mooy def euh, boobu gan di tànn béer tuddee ko waa banlieue bi tuddee ko doomu Pikine doomu Géejawaay doomu Parcelles doomu Yëmbal ñooñu la ñu tuddee li nga xam ni moom mooy tànn béer bu mag a mag boobu nga xam ni tànn béer de l'année xam nga dañ naan anniversaire mondial waaye tànn béer bi moom mooy tànn béer mondial et eh, Adam bi mooy tànn béer mondial bàyyi leen ci xel bu baax baax baax sunu yaay Ndeye Ndiaye Tyson Sène daal di koy dippee Timbo nga xam ni mooy moom mooy maire de la ville de de de Pikine daal di koy tuddee Amadou maire de la ville de Pikine Nord waaye dippee nañ ko ki nga xam ne moom mooy Abdoulaye Diop maire de la ville de Pikine ginnaaw raay waaye dippee nañ ko ki nga xam ni moom mooy Awa Niang di député bu mag a mag a mag a mag ci Pikine ñu ngi koy dippee ki nga xam ne moom mooy Amadou Sy président ODCAV waaye dippee nañ ko Aliba Aliba responsable ca Pikine Aliba Aliba Aliba dippee nañ ko guddi gi nga xam ni moom mooy guddi nga xam mooy tànnibéer bu mag a mag a mag boobu nga xam ni mooy xew ca Pikine leen wax nii dañ cee teel a jël suñuy matuwaay li yàq tànnibéer yi bugguñu ko foofu suñu tànnibéer bu mag ba nga xam ne mooy am le 3 ca Pikine xam ngeen lu yàq tànnibéer yi en papi xam ngeen lu yàq tànnibéer yi Bruno xam ngeen lu yàq tànnibéer yi Amdi xam ngeen lu yàq tànnibéer yi Pape Samba li yàq tànnibéer yi xam ngeen ko papi ma wax li yàq tànnibéer ba <laughs> bëgguñu ko fa waaw ah, bëgguñu fa dañ leen sensibiliser rek pour ngeen ñëw mais suñu tànnibéer boobu nga xam ne mooy xew le 3 septembre ñun doomu banlieue bi ñun ñi moom tànnibéer bi Ndeye Ndiaye Tyson indil ñu ko fi ànd ceeg Mor Xarma ak ñooñu nga xam ne ñoom ñooy Aliba ak maire yu mag yooyu ñoom awa ñaa ñu baax ñoo ñëpp ñu ngi leen di woo ci xar yi waaye ñu ngi leen di woo ca tànnibéer ba mani bëgguñu fa baax yàqal ngeen ñu suñuy tànnibéer ñun seetaankat yi ñun spectateur yu Tànnibéer yi yàqal ngeen suñu Tànnibéer wallaay maa wax lii ba baaxul ci Tànnibéer <laughs> ba daal baax na ci ci ci ci ci ci boo ko solee def ci sa o romb ca koñ ba ñu xool ko ah di ci jël suñu wërsëg ah ah <laughs> kay waa kay nag léegi salaamaaleykum. waaw fii baax na. waaw waaw fi nga dugg nii baax na de. ah waaw sëñ siyaare naa la. nii leer na nañ salaamaaleykum. <laughs> waaleykum salaam. salaamaaleykum. waaleykum salaam. kii kala Ilimane Gueye mu sëñ Saaliw waaw xaritam la de waaye yéen kii du Alaaji Dia moom moom Bambay ay waay waay ka ak aka xam kii du Papis Ñaa mooy borom fas yi maa la loolu mooma wala Papis Dieng acti wala Papa Dieng acti plus ki ko sopp la te yéene jaam waa kay waa kay waa kay waa kay sama waa ji ana noo def waaw maa ngi sant yàlla yaa ngi am jàmm ba yaa ñu ngi sant bu baax a baax Mansour Diong mooy chéri bànneex yàlla na jàmm sax doomu nday Aminata Paris kenn du ñoom ayca noo def. waaw maa ngi sant yàlla ba. noo tudd ak foo may woowee. Eh, maa ngi tudd Boubacar Ba di la woowee Pikine Ridis. yaa may woowee fan. Pikine Ridis. Pikine Ridis. waaw. waa kay maa ngi fay nuyu sama xarit ba kenn du moom. waaw. waa kay waa kay waa kay waa kay waa kay sama xarit ba kan laa. waaw abaa laa bëggoon. kan laa xam dëkk Pikine Ridis ah. <laughs> a ah, Galaye Diagne fa la juddoo fa la Galaye Diagne juddoo Chéri Dolce Montero Galaye mon ami yàlla na jàmm mm. le jeune transitaire léegi. waaw. yow. Mm-hmm. su ma la mayee sama portable bi ah. loo ciy def. xanaa jox ko sama soxna. da nga jox sa. sama soxna. ah kon te ma ko jox sama soxna man mii kon. <laughs> ah ah ah. ah. ah. ah non léegi da nga ma ko jox ma jox ko mu jox ko. mbaa ma jox ko am. ah. am mooy borom boîte d'argent ak café am borom télé am borom portable am mbooj sama xarit bi doomu ndey Manatu ah. am doomu ndey Jules Souleymane am mooy doomu moom ah, ah ah am doomi réew mi dëkk ci réew mi tey defar réew mi am anoto bi am mbooj moom nami moom frère nga lan yow. kanti portable bi ban marque la soo ma ko may la ko noppaliku ngeen am jàmm ma am jàmm ñëpp am jàmm déggal Bruno ak seytaane di ko zoom oh, kii Bruno seytaane la et eh, fii laa la koy wane fële ci Pape Samba Pape Samba zoom bi arrière Samba zoom arrière ok sa waay portable bi ban marque la ah marque portable bi la Cisco la waaw yow kii la <laughs> Euh, quatre mille. ñaata siga. huit. oui. ñaata mégapixel la yow. Euh, huit. léegi yow da ngay aalu. ah. da ngay aalu yow. non yow lay jàngee ba. barki bu xoolal waaw da ngay déglu man Baye Darou la barki borom Darou Muxti. ah barke maam Thierno Ibra Faty mi ma yaakaar Baye Awa Balla ak Modou Awa Balla la rakk la borom mbax na cur carja borom na mbay baat ya tëxër mbëmbët gi ma lay laaj boo ko waxee ma may la portable bi nga am jàmm am jàmm. dëggal bismillah. ki defar portable bi nu mu tudd. ki ko defar. bul wax lion de du lion de. ah. du wang lii du lion. ki defaat portable bi nu mu ñii di ree ñu xool yi di ree piégé wu ma ko dama koo laaj bi ban fil lañ ko defaree ca Corée ak ki ko defar nu mu tudd. waaw loolu de moom ah, ah, ah, tax yoo laa ci xam. ah trouvé vraiment trouvé woo portable bi ki ko defar mu ngi tudd Hiroshima Nakasaki rakk Wang Fong Yung. <laughs> ñoo ñoo ko defar ay cee bu dee ay cee na kooku génn daa perte perte na perte na na génn na génn bu dee am na keneen ku ñëw ma laaj ko portable bi ki ko defar nu mu tudd soo ko waxee rek ma may la ko aw ma benn problème ak yéen yéen yéen a ko moom lu euh, euh, lëf lii yéen laa ko fi tegal yéen laa koy jox doyoo ma ko dara lu nu mu mënti toll yéen yéen a ko moom ay ca mu ngi nii ma ki ko defar ak fi ñu ko defaree boo bëri yaakaar ni boo ñëwee di nga trouvé dinaa laaj ban heure ban heure ci lañ ko defar ndax ñoom heure bu ne la ñuy liggéey maaleykum salaam. ki defar lii kan la. ah. ku ko defar. ah. nu mu tudd. Astou Fall. na génn waay bu dee am na keneen ku ñëw waay ñu nit ko. ok ok Astou ku def <laughs> bu leen ma reetaan la waaye s'il te plaît dimbal leen ma ok maa ngi nuyu sama papa ju a a baax nga xam ni moom mooy Samba Bathily ah moom mooy maire Wakaam maa ngi koy ziar bu baax waaye maa ngi nuyu sama papa nga xam ni mooy mooy le grand jaraaf du Cap Vert jaraaf Youssou Ndoye ah, papa maa ngi lay ziar bu baax baax noonu lay ziaree sama papa nga xam ni mooy papa Baba Diaw Itok maa nga Thiès jàpp njàmburam sama papa Ahmed Amar mooy borom NMA maa ngi koy ziar bu baax papa Mbaye Kando kenn du yow waaye kii borom faj bi am mooy am mooy borom pari yi am yàlla na la yàlla defal jàmm ah <laughs> la ilaha illallah am boo defee loolu day da nga def loo xam ne ci àdduna mën nga koo rëcc xam nga am man ak yow mënuñoo waxtaan ci téléphone mënuñoo toog di waxtaan SMS rek lañ mën di avanté am mbooj doomu nday mañaxtu am mbooj doomu nday Souleymane Gilles waaye am mooy góoru jayna ba yàlla jàmmam yàgg am mbooj maa ngi pare léegi woola am maa ngi pare léegi woola ayca salaamaaleykum. waaleykum salaam. maa ngi bëgg a dugg ci rubrique bu am solo ana noo tudd ak fa may woowee. Mbacke Niang laa tudd maa ngi woowee Touba. noo tudd. Mbacke Niang maa ngi woowee Touba. ah. dama am sama benn waajoo xam ne mu ngi tudd Ndiogu Mbaye. Mbacke Niang Mbacke Niang. ma ne am naa waajoo xam ni Ndiogu Mbaye la tudd. waaw Touba laa waa kay waa kay waa kay bi laaj ma déglu kooku gis nga sooy wax ak moom ba wax loo xam ne arrangé ko danañ la allo. allo waaw fi nga nekk amul réseau de. doo pousse fi nga nekk amul réseau. ah amul réseau. waaw waaw da ngay rek da ngay tuuti rek agos tuuti waaw. arrière ah. Touba la Touba. Oh, waaw waa kay fi nga taxaw nii baax na da ngay avancer tuuti rek. Hmm? allo. allo oh, oh oh oh pourtant bu avancé woon tuuti mag xaw ko dégg parce que fi mu nekk maa ko doon dégg dafa amoon tuuti écho donc avancé woon tuuti gën koo dégg jël téléphone bii daal ko koy may wax ma rek ban koñ ci Corée ban koñ ci Corée lañ defaree lii ban koñ ci Corée ayca portable bi ban koñ la ci biir Corée boobu boobu ku ma wax rek yaa ban koñ la ci biir Corée Corée <laughs> xam nga Corée da daa yaatu wax ma koñ bi ñu defaree portable bi ma may leen ko damay rus sax su ma yoree loo xam ni dama ko war a may te ma gis nga bi ma fi amee ndox. dama koo mayee ba mu jeex maa ngi ni am problème ndox gis nga sama diw gii maa ngi wër ku niin lewul ma niinal la di la diwal maa ngi wër di diwalaate kon yëpp maa tax mu niin kër yëpp maa tax mu niin kon xanaa sama yëf maa ngi a koy bokk portable bi maa tax ngeen di am whatsapp snapchat facebook youtube lépp rek instagram maa tax ngeen koy am dama woor nag tey moo tax du ma mën wax ay wax yu bari damaa woor waaye ah wala damaa wax ay wax yu bari ba pare ah, ok ok rubrique bi ngay dugg tey la final bi rubrique final bi rubrique bi rubrique wut xar la fi ñu toll nii mooy final bi sama yaay daf may seetaan ba ba yàgg mu woo ma li ndax amul loo commencé jël <laughs> wallaay wallaay sama yaay ma ko yaay booy naturel sa xola naturel <laughs> nii la billaay léegi rubrique bi mooy rubrique wut xar fiñ ci toll nag mooy final bi ay kay ak kay ak kay ak kay maa ngi koy nuyu bu baax ah nuyu naa la bu baax a baax a baax mu ngi ci presse en ligne bi ah, ñu ngi koy ziar baax léegi dañ leen wax soirée yi nga xam ni moo war a xew ci ci ci fête yi ak après fête yi yi war a xew mooy Wally Ballago sekk day joué ci penc ma waaye dina joué Vogue soirée yi war a xew mooy Pape Diouf dina joué foofu ngeen xam ni fa ngeen ko tàmm di fekk waaye dina joué fi nga xam moom mooy. ca ca ca Baaramundi soirée ya war a xew mooy suñu papa Youssou Ndour day joué le 2 soirée ya war a xew mooy ki nga xam ne mooy Boy Sidi Diop dina joué le 16 foofu nga xam ni moom mooy ca Akapes waaye le 10 moom la ñuy àndal ca Voile d'Or soirée ya war a xew mooy Pama Pama le fils de El Hadj Ndiouga Dieng day joué le 9 anniversaire am ca fa nga xam ni moom mooy ca Pentola soirée yi ya war a xew yaakaar naa ni yooyu rek la soirée yi ñoo fi war a xew ah ñoom Momo Dieng boo yooyu yëpp dañuy joué incha allah soirée ya war a xew. dina ci bokk bi nga xam ne moom mooy le 15 ca Bruxelles ak Wally Ballago Seck le 16 ca Turquie ak Wally Ballago Seck waaye le 22 ci Fun City ak Ava No Stress yooyu ñooy soirée yi war a xew maa leen koy may gratuit wax naa leen chaque wax les week-end yi war a xew yéen ñi yor programme waykat yi di leen ma ko sms di ma ko whatsapp chaque jeudi ma may leen les programmes yi nga xam ne ñoo a xew ku ci nekk ak fan ngay joué maa leen ko may ci xol bu sedd parce que 12 13 yéen yéen a ko moom la 2STV c'est votre partenaire dama leen koy may ci xol bu sedd guy waa xari fun toll Ilimaan Gueye mu Serigne Saliou final lañ toll junior Cissé Lo moom Moustapha Cissé Lo ah Adja mu baax mi kenn du yow Cheikh Fall GGB ah Abu Gueye Chéri Thiané Faye Alou Ndoye Séri Mak Kouyaté ah ah ah Sidi Diagne Sidi Diagne moo kenn du grand Serigne Diagne sama xarit ba Serigne na jàmmam yaag Serigne Diagne ak kan ah final lan ne tey final ay yeneen rubrique sax amu fi bi teel ma ko suba la tabaski xaw ma ginnaaw suba benn problème lijjantee guñ ko teel ma téléphone bi Sonia Sagna la vieille dame Aji Binta Cissé yaayi dof nday menace tour du monde ah Pape Pape Dieng borom Actu Plus Papis Nia moom moom fas yi Baye Ndiaye diw gi Umu Xayri Ndiaye première njëkkee Baye Ndiaye Aji Ana Ndiaye borom sin ak Yaoundé mooy yaayu umu xayri njaay waa kañ ngeen di ñëw ah wooy Abdoul directeur 2STV Birane directeur TFM Bougane Gueye Dany sama directeur pour l'éternité mon ami mon frère Bougane Gueye Sidi Lamine Niass ah wuu ah ma door wala wa ah. wala ma bàyyi ko Sidi Lamine maa ngi jégalu gars yi danañ ñu ngi jégalu <laughs> ayca Papa Mbaye Kane loo <laughs> gars yi gars yi laa ni ndax ma door gars yi ne ma non non ñu ngi jégalu Papa Kora Fall Papa Itok. papa papa papa papa Ahmed Amar borom enema léegi léegi xam nga laa bëgg ñu dem seetaan le zapping du jour après ñu ñëwaat daal di tëj li nga xam mooy plateau bi ak sama daj périer bi bul dem zapping tant que gisoo sama daj périer bi tàccu leen ah daj périer de Abba ah ah Jeux olympiques ah, ah! ah! ah! Jeux olympiques Aba ah le daaj péri zapping zapping tey jii sénégalais yi ñoo ne xaalisu Cheikh Alassane Sène nga jël pasar pasare ko yàq ko récolté woo ci lu dul ay tablettu nen bon Bijou xam nga loolu man li ma si euh, wax mooy yow mii waroon nga weesu loolu. bon man nag bu doon sama sago duñu demee ay sos daal dañuy demee ay firnde wax lu leer naañ. mais Barthélémy kenn du la am Khalifa Sall. diplôme mu réewoon de la am. le ministre d'État Ousmane Ngom bi président Karim Wade nekkee en prison ba muy génn. mosu ko seet. benn confidence balaa muy génn xam bu ñu ko waxee la wax mu ne oui parce que Serigne moo ko ne heure boo demee seeti Karim Wade da nga koy fekk prison. na ci boo xamante ni mant la xale yaa ngi koy jëfandikoo di ko def seen gémmiñ di def naka su noonu ak bi nga xamante ne dañ koy pompe te nga xamante ni waa ji mën naa ne kàttanam du kook moom li fekk suba heure bi mu ko defee woon baa ci biir woor du yàq na tànn bi rek sabar ñun au temps dañ daan taxaw ci ginnaaw kii tëgg sabar la ilaha illa eh, sukk ci suuf sabar yi nii nii sabar ba mel na ci yow laay la ngay seetaan di gis la la neex mais fi ñu nii baa lañ jël dugal ko ci biir sabar yi moo tax tànn biir amatul da nga gis koo xam ne day joxe xar mi lekk ba bët sa bu ñu xëyee dem euh, jàkk ja ba ñibbisi bu ñu ko reyee bu ñu ubbee biir bi lu si gën a bari lañ fay fekk la ñuy fekk lekk boo xam ne reesul mhm. te loolu c'est dangereux mhm. kon li ñuy conseillé mooy bu nekkente ne dañu ne ëllëg la julli ji guddi gi bu mu lekk dañu ne maanaam lu tolloog fukki waxtu ak ñaar. Mhm. waru koo lekk pour may ko la nga xam ne jiitaloon na ko. Mhm. pour na ko reesal ba noppi. góor nu mu daan mel daal ba ñu ba ñu manifester ne góor la. loolu mbayang daawoo xaar sax ba borom yegg si ci sa kër. mbaa nga seq ak moom dara doog koo xam. waaw romb ko ci mbedd mii rek yàlla natt ko mu safa tuur ndox ci mbedd. Tuuba la ñuy naan di waxtaan ci baaxu borom ndigal fa yàlla fa yàlla fa yàlla fa yàlla am bamba fi mu nu jëme ñun moo nu gënal fa mu nu jële ndax maay faal Aïcha mu ngi noonu <laughs> mu noonu mooy zapping bi nga xam ni mooy tëj ci semaine bi mooy tëj euh, le dernier jour nga xam ni moom mooy moom mooy émission boobu nga xam ne mooy 12 13 Aïcha léegi nag li ñu fi amoon ci waxtu daa jeex tak tak tak tak tak fi ñu nag li ñuy def mooy di leen souhaiter une très bonne fête de tabaski la daa càng ah li ñuy def mooy leen souhaiter une très bon fête ah, ñëpp nañ ko paas ci jàll ci jàmm ak salaam yàlla na ñëpp am xar yàlla na ñëpp am yére yàlla bu ci kenn am bor yàlla bu ci kenn am problème yàlla na réew mi neex yàlla def ci jàmm ak salaam ci barke Seydina Muhammad réew mi saawaan baawaan ñëpp sant seen bopp ci feedi ñëpp sol ay yére yu rafet ñëpp am ay xar kër yëpp am jàmm ñu passé ko mu nekk fête bu neex a neex neex a neex a neex tey jii nga xam ni mooy taxawaayu Arafat lépp luñ fa taxaw ak lépp luñ fa ñaan balaa muy dem ci kenn yàlla na njëkk dal ci suñu réew mi nga xam ni moom mooy Sénégal moom la ñu am amuñu fu ko ëpp waaye nag yow Mbaye Cheikh Awa Balla moom mi nga xam ne mooy càtt Serigne Fallou moom la ñu dénk sama yaay jooju nga xam ne moom mooy soxna Kuri Fall yow Baye Cheikh man maa a war a njoxar yow maam Thierno Ibra Faty bàyyi aw ball ak Modou aw ball yow sama yaakaar yi àdduna ak man maa la war a joxar waaye yow Cheikh Bass Abdoul Khadre yow mi nga xam ni yaay sunu porte parole ñun yoonu murit yow mi nga xam ni yaay yow yow yow yow yaay sët ci Cheikhul Khadim nga xam ni moo waral yoon wi bàyyi Bass ak Baara maami dan ak Cheikh Mbacke man maa la war a joxar ñu ngi ziar waa kër diine yëpp nag di ngi ziar kër diina yëpp di baal ñëpp àq di baalu ñëpp àq di leen wax ni yàlla na feet wi jaar ci yoon feet wi yàlla nañ ko feetu ci bisimilahi rahmaani rahim jeexal ko ci alhamdulilahi rabil alamin sant naa ñëpp gërëm naa ñëpp baal naa leen baal leen ma tabaski ak jàmm ba romb ko ñëwaat fii ci beneen numéro 12 13 jërë ngeen jëf na ñëpp kontaan sant naa bu baax a baax a baax huile bi nga xam ni mooy huile j'adore maa ngi koy gërëm di ko sant bu baax sant naa bu baax a baax a baax li nga xam ni moom mooy xumma et frère mu indil ñu portable yi nga xam ni moo gën ci ñun ñii dañuy continuer man ci 12 13 waaye comme dañoo jëm ci fête bëgg naa ñu jàpp ci fête bu baax a baax a baax gi gii jàpp leen ci fet bi xool leen ñi amul doole ngeen dimbali leen yéen ABC may leen ci diw gi waaye nag wàññi leen diw gi diw gi prix bi neex na lool yomb na lool dem leen wuti ko foofu nga xam ni moom mooy ca ca ca ca alburax foofu ci alburax lii nag biram xuma na ñëpp bu ñu sañsee nañu jël seen portable ñu snap si nañu jël snap te loolu yow rek yaa a yow rek yaa a waral biram xuma wàññi téléphone yi euh, nga def promotion ci tabaski yi maye téléphone sax mbala nga joxe téléphone loo neex biram ay ci lii laa bëgg ci feet yi nga ñëpp kontaan waaye ni ma def as création moom moo ko def wax naa as sama xarit boobu ma nga ca marché face jàpp ñàmburam 77 ngay def 793 61 72 77 793 61 72 waaye sama xarit bi Ndeye Marème chéri Mansour Diong bànneex maa la bëggal sama bopp ku ma bëgg bàyyi maag bànneex yàlla na yàlla def jàmm jërë ngeen jëf ba lëndee jàmm incha allah ba bye